ba ca topp mooy daaw sëriñ Mansour dafa jëloon thème sëriñ Abdul Aziz Sy pour waxtaane ko ren mu jëlaat thème sëriñ Abdul Aziz Sy Dabakh war koo waxtaane déwén itam incha allah noonu lay def fii ba téeméeri at ko doon waxtaane sëriñ Abdul Aziz Sy Dabakh du jeex ndax euh, imaam bi muy tàmbali wax ji dafa ne ñu may waxtaan loo ci ku neex a waxtaane ndax loo wax ci moom rek ci moom la bokk boo ne sëñ Abdoul Aziz Sy Dabakh dafa tabe woon dafa maandu woon dafa gore woon waxal waxal waxal loo wax rek ci moom la te dafay am lu koy firndeel ci jëf joo xam ne da ngay naan def na lii moo firndeel lii def na lii moo firndeel lii sëñ Abdoul Aziz Sy Dabakh bind na bàyyi fi am na benn gëstukat bu nekk université bu Pire boo xam ne du sénégalais sax doon seet ay mbindu mag ñi nekk ci Sénégal bi mu àggee ci mbindum sëñ Abdoul Aziz Sy Dabakh fekk na mu nekk fukki junneeg ñaar ci ay baytu ak lu topp yoo xam ne moom moo ko moo ko bind ci ci loxoom te benn baytu bu nekk ci baytu yooyu bu ñu ko defee programme mu Sénégal Sénégal jakk waxuma la baytu ba waaye ajzu ba mm-hmm. wala sadru ba bu ñu ko jëloon Sénégal jàkk waxuma la ajzu ba wala sadru ba waaye benn baat benn jumla ci baytu yooyu buñ ko defoon programme mu Sénégal programme mu Sénégal euh, Sénégal jàkk kon sëñ Abdou mooy koo xam ne dafa dund dundum nekk leçon ci ñun waaye bi mu génnee àdduna mu ngi mel ne ci la ci la ci ci la gën a gën a gën a amee efficacité am na benn kasetam yéen ñëpp dégg ngeen ko boo xam ne saa yu réew mi yëngoo boo ko balancé ci rajo yi wala ci télé yi rek dafay mel ne dafay mel ne dafa sotti nit ñi moo xam politicien baax moo xam askan waak moo xam borom xam-xam dafa mel ne dafay dafay mel ne ndox moo sotti ci safara lépp daal di jeex te bu koy wax day mel ne tey la ko wax waaye waxu ko woon démb kooku mooy sëñ Abdul Aziz Sy Dabakh waaye Chérif arab dafay faral di wax ne maanaam bi wolof ne fi ndox daata boo fa demee fekk fa tepp tepp am na nu ko arab waxee dafa ne ndab la nekk ca biiram rek moo cay xeeñ moo cay seeb waaw waaw laa yandaxu al inaau illa bi ma fiihi ndab lay seeb ca ndab la rek moo nekk ca biir koo xam ne way juram mooy Cheikh Seydil Hadji Malick Sy nga xam ne nettali nañu ma bés ci wàllu maanduteem jëf joo xam ne amee naa ci yaakaar ne sax xanaa sax ku dëkk Sénégal sax war na ci mën a yaakaaree dugg ajana sax mm-hmm. ndax dafa war benn dàbb ci maandu dafa war euh, dàbb benn fas mu romb toolu jàmbur fekk sax borom tool bi jël na la ci war ba pare fas wa sëgg lekk ca ngooñ ma as ngooñ su sa desoon mu dal di ne ah ki mu àndaloon ah problème di am na ñun de dootuñu mën a ci dem de fi mu ne kay lonku nañu rek moom kay nañu wàcc rek seet solution il faut ñu laaj borom tool bi ba wax ko ni sas wi kat def na lii ci sa tool ndax may nga ñu ko ñu door a war a mën a dem mm-hmm. ñu dal di bi toog di di laajte laajte laajte ba ñu gis borom tool bi ñu wax ko loolu mu ne leen ah mënoon ngeen dem rek ndax lii amul solo nangam ak nangam mm-hmm. mënoon ngeen dem boobu mm-hmm. xam nga bu ko bàyyi woon noonu ba àllaaxira dootul amati day naan andi parce que wóoruma ndax sama yëf dina mat wala déet andi leen ndax ma mën a mucc la naroon doon waaye xoolal maanute boobu rek foo koy gisati ci àdduna bi ñun suñu logique bi ñuy dundee léegi shérif mooy ci wàllu am am mooy lu ma am ma jël loo am ñu bokk ko avancement lay amee lu ma am ma loo am ñu bokk ko nit ñi logique yooyu la ñuy dundee léegi maanaam wàllu social ay mbind yoo xam ne war nañ ko mën a jëlee ci sëñ Abdoul Aziz Sy Dabakh pour suuxatee ko suñu tag tagu jamono jamono ji dafa dem ba xam naa chérif dina ci ñëw dafa dem ba mu mel ne lu planté wu. Mm-hmm. léeg mu am ci ordinateur yi. Mm-hmm. gaa yooyu xam nañ ci dara léeg nga activé ordinateur yi mu planté wu muy wër rek du nangoo dem. <laughs> nga ne xaaral ma fay ko book taalaat waaye kon nañu fay boog taalaat. Mm-hmm. ndax mu <laughs> ndax mu mën a dem. fay taalaat bi mooy lan. fay taalaat bi mooy ñun dañu am chance ci Sénégal. niroowuñu ak yeneen réew yu baree baree baree bare ci Afrique. Sénégal saa yi ñu yaakaaree ni dina takk ci lay gën a ci ci lay gën a nekk glace sax mm-hmm. saa yoo ne eh suba suba de ma eh, yëf yi de suba la de moom daal kuy dem Dakar daal demal tey moom suba moom wóorul nañuy jël suñu matukaay <laughs> waaye bu suba dara du xew lu waral loolu du ci ñun mais li fi mag ñi bàyyi ak ni ñu ko fi bàyyee la loolu nag lañu ñu war a protéger mm-hmm. ñu euh, yaatal ko ñu avancé ko pour ñu mën a kii pour pour ñu mën a am dund bu garanti wu. parce que du ñu ne am na ñu mag ñu baax rek dañuy toog di consommer bu boobaa dina am bés mm-hmm. loolu nekk fi ba pare leneen dal ñu.